leen di wax la làmb nangu ak la làmb bañ diggante Xaasim ñing ak Orange Xaasim ñing Thiès Orange Diourbel arbitre ba soufflé na genn seen diggante ñoom ñaar ñoom ñaar daw nañ jàppante Xaasim ñing Badara Seen Badara Seen mooy Diourbel Xaasim ñing mooy Thiès attention oh ñaari xale yi rëpp nañ jogaat waaw waaw ñaari xalay yi rëpp nañu jogaat daw nañu teganta bop waaw waaw Xaasim ñing Thiès Badara Sène Diourbel catégorie 66 kilos final drapeau du chef de l'État waaw waaw Xaasim Ñing Thiès Badara Sène Diourbel di leen fàttali ñu ngi ci vingt-et-unième édition drapeau du chef de l'État waaw waaw Xaasim Ñing ak Badara Sène waaw waaw oh xaasim ma ngay dugg xale ba bañ na waaw waaw xaasim ñi badara seen ña ngay bëre waaw waaw xaasim ma ngay jàpp xale ba bolok na loxo ba jàpp na loxo ba waaw waaw fii la na ko bañ na ñaari xale yaa ngay bëre nag ay mbërëntaan lañu waaw waaw cey xaasim ñi ngi cey badara seen xaasim ma ngi koy puus badara ngi koy puus ña ngay puusante waaw waaw tegante nañu bopp xaasi ma ngi koy puus wante Badara ngi koy puus moom tamit Badara dafa ndengeñ Badara dafa ndengeñ Badara seen bu Jurbel ak xaasim ñing bu Cees Badara seen bu Jurbel xaasim ñing bu Cees catégorie 66 kilos la ñuy bëri waaw waaw yéen ngi ànd ak Leewtoo TV bëggee nañ leen bu baax a baax yàlla na yàlla dolli jàmm. arbitre soufflé na lan moo xew arbitre la na oh Badara Sène Xaasim ñu ngi jël na avertissement xale Fatick bi am na benn avertissement waaw gonek Cees gi gonek Cees gi am na benn avertissement waaw waaw arbitre nee ko bëreel waaw waaw waaw waaw jaajëf bëggee naa la doom ndey mbaa yaa ngi si jàmm attention xale ba war na ko war na ko waaw waaw daan da ngay ñàkk trois appuis ñàkk nga waaw waaw daanu nga. oh Thiès daan na ko Thiès am na un Thiès am na un waaw waaw am na un Diourbel am na zéro Mansour Fall doxalal ñu dem. waaw waaw ndambe mooy bëre ndambe waaw waaw waaw ndambe jël na tànk ba waaw yëkkati ko door na ko suuf ndambe daan na ko ndambe daan na xalab Cees ba ma ngay waaw waaw ma ngay naaw oo oh, ndambe waay Jurbel 1 Cees 1 waaw waaw du yomb de Jurbel di leen fàttali Dibakor Sañ mi daan na Gandia Fama démb ci demi-finale par individuel Gandia Fama nee na ma maag Dibakor bëre nañ fois daan naa ko deux fois daan na ma deux fois kon ñaari xale yi xamante nañ tey mooy combat de clarification bi tey mooy combat leeral bi arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar Gandia Fama Diourbel Dibakor Sagne Thiès final drapeau du chef de l'état par équipe Thiès am na un Diourbel am na un waaw waaw Dibakor Sagne Gandia Fama waaw waaw Dibekor Sëñ Gandia Fama waaw waaw Dibekor Sëñ Thiès Gandia Fama Diourbel waaw waaw Eumeu Sène gi noonu di wër mi ngi noonu di wër di wër di wër làmb ji wante Bombardier tamit seen nañ ko sànq ñëw na ci lambaji ji waaw waaw Dibekor Sëñ Gandia Fama catégorie 86 kilos final drapo du chef de waaw waaw arbitre nee leen bëre leen leen naxante bi waaw waaw ganja fama dibakor sañ ganja fama dibakor sañ waaw waaw ganja fama dibakor sañ waaw waaw attention gànjam mi mën a sànq wante demul ñoom ñaar kenn du ci bëgg a wanteer combat bi waaw waaw gànja faama dibakor sañ jurbel Thiès gànja faama jurbel dibakor sañ fële ca Thiès waaw waaw waaw waaw avertissement Gandia Fama avertissement Dibakor Sagne ñoom ñaar ku ci nekk am na benn avertissement. Gandia Fama Dibakor Sagne waaw waaw kenn bëggu cee def erreur ndax fi ndax ndax fi fi làmb ji toll la Fatick am na un Diourbel am na un kenn bëggu la def erreur. ku ci nekk li nekk sa gannaaw dafa diis waaw waaw Dibakor Sagne Gandia Fama waaw waaw Gandia Fama Dibakor Sagne daw nan tegante bopp waaw waaw hey combat bi du yomb maa la ko wax ndax ñoom ñaar dañoo bëri démb Dibakor Sagne daan ko Gandia bu ñëw day àndaale loolu du bëgg Dibakor daanaat ko maa la ko wax waaw waaw aca gànjaam koy fàqat xale ba bañ na waaw waaw dara amagul de gànja faama Dibakor sañ arbitre nee na mi waaw waaw mi nañu dem leen nopp lu ñëwaat waxtaan nag sa coach guux ndox ñëwaat diggante Dibakor sañ bu Thiès ak gànja faama bu Diourbel waaw waaw daw nan tegante bopp waaw waaw Diboucor daa mel ni bëggul songo bi Diboucor daa mel day daw jàppante bi waaw ganja jàpp na ca kaw Diboucor waaw Diboucor fippu na waaw waaw dara amagul sañ ganja faama waaw waaw merci beaucoup Aliou Sène ay ca Diboucor sañ attention Diboucor sañ waaw waaw Dibakor sëñ Ganja Fama waaw waaw dara amagul ba léegi de merci beaucoup Aliou Sène fële ca Allemagne kontaan naa ci yow Ameth Cola ngi lay bége Jal confiance Alpha Issa Ousmane Faye borom Argentine Serigne Ndey Tuuti ak Oumy Fall merci beaucoup mooy Papa kontaan naa ci yow waaw waaw Dibakor sañ jël na avertissement Dibakor Sagne am na ñaari avertissement Gandia Fama am na benn waaw waaw Gandia Fama Dibakor Sagne Gandia Fama Dibakor Sagne waaw waaw ama seen ay bàkku noonu borom taay singa Gandia Fama Dibakor Sagne waaw waaw Gandia Fama Dibakor Sagne waaw waaw oh daw na jël Dibakor daw na jël Ganja rasu waaw waaw Ganja jàpp na ca loxo ba ku ci nekk crochet sa morom waaw waaw Ganja Fama Dibakor sañ Diourbel ak Thiès Ganja Fama Dibakor sañ waaw Fama Dibakor sañ Ganja Fama Dibakor sañ Diourbel ak Thiès final drapeau chef de l'État catégorie 86 kilos waaw waaw Gandia Fama Dibekor Sagne cey Eumeu ma ngay bàkku cey Eumeu Sène kenn du moom Gandia Fama Dibekor Sagne cey Eumeu cey Eumeu waaw waaw Gandia Fama Dibekor Sagne Mansour Fall ana Bilal mbaa ma ngay jëlle waaw waaw kon baax na Gandia Fama Dibekor Sagne ganja faama dibokor sañ waaw waaw dibo da faama dibokor sañ waaw waaw léegi temps bi jeex de bëri na deux minutes ganja faama dibokor sañ ganja faama dibokor sañ waaw waaw tegante nañu bopp waaw waaw ganja faama dibokor sañ jeex na waaw ganja faama daan na ko Gandia Fama daan na ko par décision arbitrale par avertissement Gandia Fama Diourbel am na 2 Thiès am na 1 Diourbel am na 2 Thiès am na 1 Gandia Fama daan na ko par décision arbitrale par avertissement mooy bëre ak rajaxe rajaxe Diourbel waaw waaw ya mooy yaa xadi El Hadj Sidi lañ koy woowee jaajëf yaa mën ñëpp bilaay walaay taalaay rajaxe rajaxe na gaa yi. rajaxe ak El Hadj Ndiaye. day daa dëgër de. du ko xaar de fekk nañ ko sowal moo jëloon poil léger ba. waaw loolu dafa leer waaye fi mu ne nii rajaxe ku ko war a téye gisaguma ko fii ber. non rajaxe ndaanaan la mer tamit ndaanaan la am. du yomb nee naa la day dem du ko xaar. waaw rajaxe moom mënta xaar. da koy dëbb naax. waaw day jàpp rek def li muy def. ci wañ la lay mujjee ak moom maa la wax lii. waaw waaw rajaxe El Sidi Ndiaye. Diourbel rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye Diourbel ak Thiès rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye Diourbel ak Thiès arbi eh jàpp ngemb am na ah waaw jàpp na ngemb waaw ah, mais da doon ngemb léegi waaw waaw rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye El Hadj Sidi Ndiaye ngay takk de El Sidi Ndiaye ngay takk de attention attention rajaxe rajaxe El Hadj Sidi amul jàpp ngemb jàpp ngemb rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye Diourbel rajaxe Diourbel El Hadj Sidi Ndiaye Thiès Diourbel am na deux am na un rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye rajaxe El Hadj Sidi rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye waaw waaw rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye Diourbel ak Thiès arbitre soufflé na rajaxe jël na avertissement El Hadj Sidi Ndiaye jël na avertissement bëre leen waaw waaw ku nekk am na benn avertissement waaw waaw El Hadj Sidi Ndiaye rajaxe waaw waaw rajaxe di leen fàttali amagul defet waaw waaw moo war a finalu par catégorie petit catégorie cent amaguñu defet ay ndaanaan lañu waaw waaw moo ko daan sànq par avertissement waaw waaw waaw daanoogul gannaawam laalagul suuf waaw waaw waaw waaw waaw waaw jaajëf bii yow kenn yow yaa man ñëpp borom RDV waaw waaw attention rajaxe jël nañ tànk ba rajaxe jël nañ tànk ba génn na ca rajaxe génn na ca waaw waaw rajaxe El Hadj Sidi koy kal El Hadj Sidi rajaxe El Hadj Sidi rajaxe El Hadj Sidi oh waaw waaw dara amagul de oh lan moo xew ruus daan na waaw waaw arbitre ruus la signalé de ruus daan ruus daan ruus daan El Hadj Sidi Ndiaye daan na rajaxe 2-2 kon léegi Thiès am na 2 Diourbel am na 2 kon final bi ordinateur la ak Boy Faye bëre waa Diourbel daa dugal recours bi mu dugalee recours commission bi siège biñ pare nee nan rajaxe 2 appui la def au lieu de 3 appui moo tax dañ koy bëriwaat ayca rajaxe El Sidi Ndiaye waaw waaw rajaxe El Sidi Ndiaye rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye waxtaan ak sa coach ñëwaat waaw waaw arbitre sëf waat na rajaxe El Hadj Sidi jël na tàng ba El Hadj Sidi jël na tàng ba waaw waaw El Hadj Sidi jël ba da koy daan El Hadj Sidi Ndiaye daan na ko leer na waaw waaw daan na ko bi yoon de leer na moom waaw waaw El Hadj Sidi daan na ko daa mën a bëre xale bi daa mën a bëre Thiès am na ñaar Diourbel am na ñaar léegi mu des final waaw waaw waaw 2-2 la kon Boy Faye ak Libidor ñoom ñaar ku daan sa dakay jël drapeau chef de l'état ba waaw waaw Boy Faye Libidor waaw waaw Boy Faye Libidor Boy Faye Libidor waaw waaw Diourbel ak Thiès Boy fay Libidor waaw waaw Boy Faye ngay jàpp waaw ma ngay jàpp di di pivoter waaw waaw Boy Faye ngay jàpp di pivoter waaw waaw waat nañu Boy Faye ak Libidor waaw Boy Faye ngi jooy ay ca Mansour booy fay ngi jooy mu ngi mu ngi sëgg ci kanamu pa ambourage pa ambourage di jooy waaw waaw fay dafa kontaan xol ba sedd oh, nee na père ambourage lépp yow la nee na père ambourage yow la yàlla fay dafa am jooy na xar am booy fay looy wax bala ngaa dem. ayca champion champion wax lan moo waral jooy. wala du ak xaadim. lan moo waral jooy samp yow. tooñu dara. da ngaa da ngaa gore. ay ko nga kii li mu defal Diourbel ëpp na. ay na ko mu lànk ne Diourbel neex na xari Diourbel man maay sal confiance dafa def lu am solo. am na ay mbër yoo xam ne doo dem ak